jullit xàqan yaa ngi dégg Ousmane Sonko gaa man la sumuwaay jamono yee passé le premier mai bi mu waxee noonu ba pare xam nga def na discours bi mu waxee ba pare maa ngi fàlligu maa ngi toog si guddi gi noonu maa ngi toog ak sama papa yaa ngi dégg ma koy nuyu di ko siyaar noonu ñu waxtaan noonu tuuti mu ne day génn day dem kër président Ousmane songo ma ne ko tey par la force dama lay topp mu wax jëm kaw jëm suuf ma ne ko tey par la force ma lay topp est-ce que ay dégg alors ndeysaan bi ñu demee ba ma gis président Ousmane Sonko ndeysaan jàkkaarloo ak moom dama jàkkaarloo ak moom rek billaahi wallaahi wa tallaahi dara taxul may wax de man waxuma ay waxu bakkan wala ay waxu ay buzz yooyu yëpp I don't give a damn about it man dunduma loolu Baay Faal man dëgg laay dund est-ce que ay dégg man dama sincère man yaa ngi dégg mm. te même Ousmane Sonko ni may ni ni ma ko gëmee nii di ànd ak moom bu ma gisee erreur wala foo xamante nii maam mi fay teg tànk te tam te ma xam ni lii maam si ay erreur la koy dugal wala dara dama koy génn dama koy dénoncer dama koy wax yaa ngi dégg waaye dama ko gis rek mais sama xel xam si la la ñëkk dem li gars naan mu sell mi mu sell mi mu sell ma ma ma ni kii macha allah kii nitu yàlla la. sa xel ci lan la dem. mooy li ma la wax li gars naan mu sell mi mais dëgg la dafa sell. leer bi macha allah dafa noonu la demee. da gis xam ni kii ah, jullit xàqan la. Baye Fall mu gis ma ndax woyof wàccee boppam gars yi bëri fii nii gars ma la su ma taam yéen xamante fii ñëpp xamante ñun si taam bi fii amul ku ñu xamul waaw nga jëlee ko pyramide escalier ba ci kaw a kaw wàcc ba ci suuf macha allah alhamdulilah mais xoola bëri ma gis wàccee boppam woyof ma gis si moom xoola woyof bu amul fenn suufee yaa ngi dégg man tamit seetu laa loo di fekk ko fi ma gën ko suufee lomb ko barki Bañas ne ko sama président est-ce dégg maanaam lu ma lay jàngal foofu mooy xamal lan waa maanaam yëgul boppam bewul rëyul du gis boppam est-ce que ma lay expliquer c'est dafa woyof wàccee boppam loolu xam loo siy jàng wàccal ba ci suuf yàlla yëg la ba ci kaw hmm. wàccal ba ci suuf yàlla yëg la ba ci kaw ki la fuuf mooy ki lay gën naaw lu rëy di gis sa bopp ndaxte aaduna du dara li woy mooy nga xam sa bopp nga mucc ci safara xam lu ma lay ci suuf yàlla yëg la ba ci kaw xam nga dafa wàcc ba ci suuf maase xola woyof tollu yàlla jël ko màggal ko te tey seet ma xamal la benn affaire di nga li gaay naan mu sell mi loolu dëgg la parce que après jamono boobu noonu yàlla xamal na ma ni jaaree ko si ay nitam ay nitu yàlla barki Maulana Cheikh Ibrahim ñu ne ma waa ji dafa jaamu yàlla ba yàlla tabat ko ay rawxaan yu am doole yu bëri doole moom ñoo ko topp est-ce que ay dégg xam nga mooy rawxaan rawxaan du rab de te du jinne du seetaane xam nga rawxaan mooy lan genre malaaka la boo xam ne day bàyyeekoo si yàlla direct xam nga ma lay expliqué rawxaan boo gisee yenn sëriñ si nii maam am barke bu ñu ñaanee yàlla nangu ci saasi parce que yàlla dafa leen may ay ah yàlla dafa leen may ay rawxaan. mais kan moo am rawxaan yow yaa confirmé. billaahi wallaahi watallaahi boo indee kaamil alxuraan léegi ma waat ko maa ngi jàpp li yéen seen kaamil alxuraan. nga waat li yéen kaamil alxuraan léegi ma waat ko. man pays yàlla bi laay dund soldat bu Baay laa taalibe Baay Cheikh Maam Rensa Diop bëgg Baay laa barki alxuraanul karim lu ma wax lu ma wóorul. Ah. te du ma tuumaal du ma sosal kenn. mën si ay dégg. Mhm. billaahi wallaahi watallaahi li ma wax nii bu dul dëgg yàlla moo am dara si Baay Ñas. yàlla da ko tabat ay rawxaan yu am doole. ñoo xam ni xam na mooy lu ma mooy la rawxaan si yàlla lay bàyyi ko direct ñëw si nit ñi moo tax gis nga rawxaan yooyu noonu ñoo koy sàmm di ko aar booy bu amul woon laa lay wax nii xëy na bi ay njabar rek laa lay wax wala ay liggéey ay xam-xam yu ñuul faatu na bu yàlla waa faatu na bu yàgg. d'accord faatu na fa yàllaaw bu yàgg li ma lay wax nii barki alxuraan loolu xamal la la ndax loolu baatin la loolu maanaam mbiru yàlla la est-ce que ay dégg yàlla xamal ma ni tamit maanaam que waa jii nii maanaam jubam ak sellam koo xamante nii gaa ma la sumbaay day naafi la kaamin loolu man yëgeew ma ko nii si ay kii de voilà si pays yàlla bi laa si pays bi laa ko yëgee non si pays yàlla bi laa ko yëgee loolu leneen la tamit est-ce que ay kuy naafi la kaamin xalifa yow ko da ngaa fan Ousmane noonu loolu xam si si ban cadre laa wax ak yow cadre maanaam jullit bi mu doon loolu la ma koy seedee damay seere ni jullit damay seere ni la à la am nga ci gars yu bëri fi ñuy topp di leen wax booy yaa ma gën a xam leen kii te ñu sax ay jullit. Hmm. booy Baye Fall ku dul jullit doo jullit de gis nga jullit sariya ngay topp ak xaqiqa. Hmm. est-ce que ay dégg sariya tey si tey boo amee jabar dem di njaaloo ax beneen jigéen bu lu sa jabar sariya rey na la nekkatoo jullit ñaata la fi sariya rey. bëri na. est-ce que yaa dégg voilà gars yi ay jullit de. mais moom moom man seedeel naa ko ni. te gëm naa ni jullit la te xoola macha allah alhamdulilah jullit la à la base ba pare nax tamit mu nekk xoola comme sànq xam wax naa la sànq ne la ku woyof la ku wàccee boppam la. pare mu nekk ku am yërmande nekk du kase. léegi léegi léegi xalifa. xalifa nañ def naa nang xalifa tey ni ngay dawee dafa dafa dafa bëri trop. dafa bëri gaan te dama kontaan quoi parce que ah. ma génn. léegi moo tax fête boobu du woon fête nii tey nii. du ma ah. sax génn di wax. léegi xalifa fête boobu mooy li ma la wax mooy la ñun jamono. naka ngay dundee a xam anniversaire Seydina Ousmane Sonko gis nga ñu ngi koy tuumaal naan ni du final du du final hmm. gaa ne léegi la waxoon tey nii gaa mu ne xoola. démb de. démb def la wax. dafa ne tey bu kenn coow. neen doomam sax moom rek na ñuy topp. neen yi ñu koy teg. Eh, ñun Ousmane Sonko kase na ñuy topp. Hmm. que instant bi gi dafa leer. ñun booy du ñu ay politiciens xam affaire yi lan ngeen ko affaire yi la non non dégg booy affaire weesu na de Sénégal la. Hmm. boo dafa dem ba leer nañ nañ nañ si bëtu àdduna bi yëpp. bëtu àdduna wërngal këpp laa lay wax nii dafa dem ba leer nañ mooy xamalan benn groupe boo xam ne ñoom seen intérêt bopp xam nga ma lay expliquer waaw intérêt askanu Sénégal ndax intérêt peuple bi ah ñu ne non non lii du fi amee ki nga xamante ni peuple bi moom la yaakaar si moom la sukkandiku yaa ngi dégg jox ko bopp ak confiance ak lépp ñu bugg ko faagaagal lan nañ waxoon ay affaire de viol menace de mort ñoom ba teggi loolu kañ. bëgg teg ay corruption de la jeunesse yoo xamante ni gaana àdduna yëpp gis nañu Socrate kese nañ si éliminé woon gaan ah ba jeunesse sénégalaise jeunesse africaine booy saa du seetaan loolu booy moo tax ma la lii léegi léegi nekkatul affaire de maanaam politique affaire de affaire de Sénégal la. Sénégal moo soxla. eh affaire nekkatul ay politique ay parti ay Pastef yi de ñun xoola bokkuñu Pastef lijjantiwuñu Pastef demuñu fa sax ay réunion ay yooyu xamuñu nu mu demee mais tey say boo gisee xoola. par exemple Pastef maintenant boo gisee gaa man sama bracelet yi si ñoom laa ko jëndee. li ñaar la li ñaar la doo dakk benn. dix bracelet laa jënd xam nga ma jënd dix bracelet. waaw wan wan ko gaay wan ko gaay instant bii nii sept la yoo xam ne ñuy ñëw ne par force a nga ne dañuy nangu yaa ma gën a xam. léegi nga dese ñoo xam bi nga defee loolu gaana. Ah. set nga dese. instant bi yaa ma gën a xam mais tey see mooy lu ma la wax. mais xam ndax ma jënd diis yi. waaw loolu xam. pour jàppale maanaam projet Pastef bi gëm naa ni sénégalais yëpp bu ku si nekk jëndoon dix yaa ma gën a xam quoi. muy dix non waa muy dix mille waaw mais bu bu bu sénégalais bu nekk booy ñaata millions de sénégalais nañ. exemple dix millions de sénégalais rek bu ñu jëndoon dix. exemple nattee ko foofu. wala cinq million sénégalais ah, jënd dix. est-ce que dix millions yëpp faral nañ ko. waaw ñu ëpp dix millions faral nañ ko nga xam est-ce que dix faral nañ ko. xanaa nga naan est-ce que dix millions yëpp yor nañ dix mille loolu ngay wax. parce que Sénégal les gens sont pauvres les Sénégalais sont pauvres on a marre on est fatigué. Khalifa Khalifa nga bindee Khalifa nga ne 10 millions sénégalais ñoo faral Ousmane Sonko. plus de 10 millions de sénégalais nga naan ma 10 millions 10 millions tuuti na. Ah plus de 10 millions sénégalais xoola ñooy topp Ousmane Sonko kase bëgg ko jox nopp jox ko bopp jox ko lëpp. est-ce que ay dégg ba ñun Ousmane Sonko kase na ñuy topp billahi wallahi wa talaay tey xoola jour de fête la c'est la fiesta. ma dem ma laal nii sama rouge xam nga. def sa rouge noonu la demee gën nii bëggee parce que man xam naa sama bopp man mënu ma wax man su ma waxee benn jëf saa wala mille man loolu laa xam. man gaynde laa. léegi léegi est-ce que dégg. mais tey see mooy li ma la wax mooy la tey sa la fête. tey da ngeen a naroon a fête Ousmane Sonko jàmm la woote nee na tey nañ bëggee. Ah, mais bu nekkoon nitu fitna. bu wowoon jeunesse bi tey si ah si que ni gars yi nañ yëngal. barki alxuraanul karim bu fekkoon Ousmane Sonko nitu nitu fitna la woote tey fitna mais nitu jàmm la mu ne suba incha allah comme tey nii xam nga nañ def concert casserole sol rouge takk brassaay maintenant gaa ma la suma heure boo fa demee gaa yi ñu ngi wër ay tilleen centenaire Gibraltar ak maintenant bi yëpp di jaay gaa yi ay bracelet yaa ngi dégg gaa yëpp ñu ngi def seen rouge mooy loolu xam nga lu ma la mhm. tey c'est la fiesta fiesta si kanam nii concert casserole pétard yi klaxon yi ma gën a xam ñu bégee xam mais Ousmane Sonko kase na ñuy topp. topp leen keneen. noonu la demee Baye Fall te bi ñu koy topp nii toppee nga ko ay yaama neex wala dara de ndax la preuve mu defoon erreur wala mu def loo xam ne si erreur la koy jëmee ñu ñooy ñëkk taxaw dénoncé. sawar nañ si te te xoolal noonu sax nañ gën a mënee. kenn ci yéen nee nañ dafa def erreur de mooy Birame Souleye Diop. moo koy jàngate ma non maa ma ñëw. tey si tey ah si Ousmane Sonko ma la wax noonu. waaw ah? Ousmane Sonko. ne la bu ñu ko toppee xam xam la moo tax. yërmandeem ak baaxam ak dëggoom jullitam. xam ma la ba pare gaamal la su xola mu jël bànneexu bakkanam nafsoom tegee ko nee. pour indil leen topp maanaam topp maanaam liggéeyal Sénégal di si xool à baas base digganteem ak boromam. d'accord Baye Fall kii di ñu gën a gore de. Hmm. non non du gën a gore Baye Fall. billaahi wallaahi wa taalaa te gis nga mooy wax moo mooy jeunesse mooy wax. à plus de quatre-vingt-dix pour cent taan fii Ndakaaru Njaay jël Jóob war ñëw këpp Sénégal région yi li may wax ni ah jeunesse sénégalaise gars ma la sum waaye làmmiñam mooy bud budi nii sama làmmiñ gi Ousmane Sonko du ñu gën a gore loolu noonu xoola moom na sax dalal xelam est ay dégg moom comme bu toog moom bu toog bu toogoon nii waxatul kenn déggatu ko waxatul deful dara ñun xoola fàttewuñ te duñ mës a fàtte est lu ma lay wax nii comme ça gars yi bu ñu ko gëjee gis rek ak comme ak ni ñu ko tëjee noonu xam nga gars yi ñuy dem ba jeunesse bi nga koy fàtte loolu du mus am. Hmm. loolu mënul nekk te du mus a am. xam nga voilà te songo ma maanaam pression bi ñu nekkatu suñuy mag de ñun firi ajana Sonko rek nañuy déglu moom rek nañuy topp pression bi xoola seen mag ñoom seen mag yi ñoom pression bi su ñoom la nekk quoi. parce que xam nga parce que xam nga xëy na ndeysaan. pression bi ci ñan la nekk. pression bi si si si état bi la nekk si gouvernement bi. parce que parce que mooy lu ma la wax may la la xëy na tey si tey. mais Macky nee na moom bokkatul. xëy na waaw ok mais dama ni la dama ni la tey si tey ok bokkatul yooyu yëpp nice mais nañ bàyyi Ousmane Sonko bokk xam ñoom ñoo ñëw nañu Khalifa Sall